ne kor yi nga o ci parti bi du nekk yàgg ci noo to nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma ne bu ko defoon jaaxal. ma ne man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lëleel. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. ma xëy rek ma ko sant. am na ñu moom ma xëy ci loolu.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 bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai de l'Intérieur et et porte-parole du gouvernement ndax la defal lii yëpp ndax am nga payam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 4 novembre 2021 soxna Rama Diagne asalaamualeykum wa rahmatullah euh, waaleykum salaam Ndiaye Diop maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Ahmadou Diop di nuyu Sénégalais nga xam waaw yaa ngi may fay jërëjëf Diop waaw may nuyu aussi sénégalais yi nekk biir Sénégal et bien di nuyu sénégalais jaspora bi yépp maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay soxna di leen ñaanal. yàlla mi nga xam ni moo mën moo sañ yal na leen yàlla taxaw amin ya rabbal alamin may leen li ci yéen amin ya musal leen ci mbas mi musal leen ci gàtt fan ak deegu ñaaw amin ya di leen ñaanal yàlla na fi ngeen nekk yépp yéen yéen ñi nekk ci diaspora bi di daan seen doole yal na leen yàlla yokk seen wërsëg. amiin ba ngeen di ko bokk ak ni ngeen koy bokkee seen famille yi kooku kenn du leen ko jàngal. amiin yaa rabbal alamin amiin. may dellu di leen ñaanal ñi nga xam ni nag ñi ngi nekk ci liggéeyukaay yi di déglu suñu kër du ma lim parce que daan kat doole yi fu nekk ña nga fa di déglu rajo suñu kër. yal na leen yàlla bett ak xéewal boo xam ne bii vraiment dana gën a gën a baax ci yéen maa ngi leen koy ñaanal. amiin yaa rabbal aalamiin ngeen toog di ñu déglu ça nous fait plaisir. voilà c'est nous dans nous comme ni ma koy waxee di wax ni njawar ñi tëdd ci hôpitaux yi man duma leen mës a fàtte. Hmm. yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu dellu seen kër. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke sëñ Touba. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin. njawar nga xam dañ leen tëj xoolaat condition yi. Hmm. nañ tolli yërmande wallaay wallaay jombul wallaay ay waay ngir yàlla yërmande hmm. bàyyi bàyyi eh, toroxal nit c'est vrai que du ma du ma ne bugg yóbbu kenn kaso mais xool leen li ngeen di yóbbu lu ko lu est-ce que romb leen lu ngeen war a yóbbu réellement dans la vie hmm. ngeen romb ko fa jël li leen neex loolu euh, daal do euh, ku ba am nday bi basta waa njawar di commencé rek di la wax ni ah euh, euh, ndeysaan ñooñu gaañu day ñu ngi leen di defal ket hmm. pour wan na rek baaxaayu Sénégal ndeysaan avec collection de vingt millions pour ndeysaan lu ñu dimbandikoo ñoom ñett ñooñu seen famille seen famille eh bien gars waaw ndeysaan euh, pour pour pour pour keesu Pastef daal ñu mën a dimbale seen famille ndeysaan hmm. dégg naa trois millions neuf cent duggagum na nga xam ni njawar njabar sénégalais moo baax. wallaay wallaay wallaay wallaay. njabar ñun sénégalais bitim réew laay wax sax ak ñi ci biir ñi ci biir Sénégal tam baax nañu mais sénégalais moo mën a joxe njabar. wallaay wallaay bu ko neexee. wallaay dëgg la de parce que sëñ Touba waxuma sàcc yi de. Hmm. waxuma sàcc yi de. Hmm. wax mooy ñi nga xam ne dañuy daan seen doole. Euh, di am ay le simik ku nekk da nga ciy bëgg a euh, dugal sa sa sa sa sa dërëm. wallaay di la force. wallaay wallaay wallaay. billaay di ngi gis benn kii buy circuler ci internet bi kii jàpp loxo ki jàpp hmm. loxo ki kii jàpp loxo kii man noonu laa bëgg àddina di doxe njabar. su ma jàppee sa loxo boobu nga jàpp sama loxo ñu jàppante. Hmm. Ah, njabar xam nga loolu yàlla lu baax rek la ciy def. kenn du bàyyi sa morom ginnaaw. ku a tërxiis rek sa morom jàppale la. wallaay wallaay loolu la loolu moo doon Sénégal démb. wa loolu mooy Sénégal démb. yal na yàlla delloo si loolu Sénégal parce que euh, dañuy rey rek waaye on a le cœur vraiment si gentil quand même. parce que mhm. nañ ko waxante dëgg maa ngi gërëm waa diaspora bi. parce que dama leen di dégg ci action yooyu ñu koy def. te nag xaalis ñàkk ko dafa metti njabar nga joxe ko. yàlla na leen ko yàlla fay li gën ci ñoom ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla fay. amiin yaa rabbal alamin amiin. voilà njabar di la wax ni ah Barsamba Barsàq ja dey. Mhm. daa mooy waaye amoon na. amoon na de. Barsamba waaw dafa mooy nag. sant yàlla nag bu moyee ndax juróom juróom ñetti fukki nit daal ñoo doon dem barsaak ñu ngi leen jàppee ci waaxu Saint-Louis bi ci géeju Saint-Louis bi marine nationale ñoo leen jàpp ñu sant yàlla nag amul ay dee waaye pirogue ba ma nga déparé woon Gambie le premier novembre mhm. waaw may ñaan yàlla ay xale yi toog leen ta xam ni bitim réew yorul dara mm. ay sagrega nekk ay ngir yàlla xam naa ni fa ngeen nekk moom jommi ngeen looloo tax ndaw yi waaye wilaay bu leen yokk seen coono toog leen rek. Hmm. toog leen tax ci dégg mu jeex. wallaay wallaay wallaay wallaay. parce que 2004 vous les vous allez savourer li ñuy wax am am am nañ ci yaakaar te yaakaar nañ ko ñu ngi koy ñaan yàlla. Hmm. toog leen. Hmm. bu leen def ci réew buñ ko waxee ngeen ni yéen yéen lu ngeen fay def. wallaay wallaay wallaay. man de man de jaañ ñaar bu démb doon tey Sénégal laay toog. parce que fii moom. man de du ma fa toog man. man Sénégal lay toog je vais dire pourquoi les raisons. man je suis tout seul njabar. di wax ak miir yeeg janax yeeg mbott yi. Hmm. neexuma parce que euh, donc yow tu as ta famille man euh, sama famille yëpp ku nekk dem nga ay mag nga sey nañu ku am jabar ku am jëkkër da ngay dem sëy yi nag c'est normal. waaw wala dama jigéene ñoom ñëpp sëy ñi sëy nañu ñi ci dem nañ seen yoon c'est normal. mais dama la bëgg wax ni. looloo tax ma ni Sénégal man damaa bëgg Sénégal dellu Sénégal moo ma gënal daal. nekk Sénégal moo ma gënal tojamaan yi laa mënta dëkkal tojamaan yi mënumaa dëkk ak ñoom. ah tey yi day den njawar ah. soo déggee mag mu man mii sax ànd naa ci yow. tojamaan yi tojamaan yi dañu dem tojamaan yi kay dañuy dem bu ñuy wax kay Sénégal bu bu neexee kay xanaa dinañu dellu suñu dëkk nag. Hmm. ah bu neexee. bu maanaam bu melee ni Dubaay man kenn di wër di fen rek di tojo sunu mani loolu kay ñooñu kay ah. dëkk ak ñoom musibala déedéet ñooñu ñooñu dañu leen di dàq ñu dem ci biti. Ah, gaaw ñu jël ñoo xam ni dinañ doxal yoon. ah gaaw ci yooyu buñ ci gaay ñëpp ñëpp dañuy dem. waaye baadoolo yi jaaykatu gerte caafee kii yi nañu ñooñu. jékki-jékki rek nekk ay milliardaire di funk ne dootuñu wax ak ak géwéli président man de su ma man day ah. nekk géwél géwélam boo ay loolu mënuloo ko boo ko jéemoon sax doo ko mën lam toora lam toora boo ko jéemoon ko mën ah, neexul neexul dara neexul mënuloo ko ab gor nga. <laughs> non dama dama dama bëgg a xam nga damay dindi stress su gars yi quoi un tout petit ba neexuma baat man du ma jaay na baat neexuma baat. loolu loolu yàlla naa ko def. waaye damaa xam nekkub géwélam rek nekk milliardaire. ah, ah! waa ji neex na de. Ah. waxin la rek di nga comprendre fi may bëgg a waxee. ah, ah Ndiawar voilà jëli naa la jëli jëli naa la. waa Ndiawar conseil des ministres de euh, bu général des armées daal nommé nañu Jean Baptiste. devenir ambassadeur euh, ci république euh, Russie. Mhm. ma koy ma koy ñaan rek ma koy ñaan bu demee ba toog. Mhm. na na fàttaliku ni doomu sénégalais yi fii ci sunu kër lañ doon jooy. seen passeport ñun rajo suñu ñoo leen toppal di ko wax di ko wax ba ñu jox leen seen passeport ñu am ngoru. woowaat njabar ni ko ñu ngi lay remercier bu baax ndax jot nañu suñu passeport yi pour am seen passeport renouvelé wu ko c'était tellement euh, difficile kon nag yow moomu mm. monsieur Jean Baptiste dal al ak jàmm te fàttaliku ne am na doomi sénégalais yu nekk foofu nga leen di dimbale ba duñu am problème de renouvellement de papier li war ci ñoom xam nga ko nga def ko waaw ak ñi nekk Ukraine a waa ñi ko li ko wër rek. te te dépendre. walaay walaay walaay. waaw ko wër rek man bi si dama caa xamul dara. Hmm. seen làkk xaw ko sax. Hmm. ñi ko wër rek te dépendre te. parce que bu ñu la hmm. namee ambassadeur nga toog njabar danga ngay ni sénégalais ya nga fa toogal nga dimbali leen ku soxla kayit nga jox ko waaye di ko jaabanteloo. di ko jaabanteloo ba doo mën a wut këyit ñun duñu dem Paris njabar mënuñoo dem Paris. parce que tout simplement boo demee di nga delluwaat delluwaat delluwaat delluwaat delluwaat nga ba ko. mujj gi nga ba kon da nga mujj doon papier sa dëkk comme ça sans papier. Mhm. nga nekk Sénégalais bon. Mhm, mhm. voilà loolu moo fi xew. di la wax ni njabar. démb de dégg naa gars yi moom euh, ab rawante la woon. Hmm? démb ci minuit. ab rawante la woon de gars yi dégg naa sous préfecture yi saan ñu daw song ko ak préfecture yi song ko. waaw compétition bi dégg naa 23 janvier la ndeysaan. deux mille vingt deux waaw bu ce mu ci déggee deg ñu teg ci deux jours muy sama anniversaire yàlla na leen sama anniversaire jik waay ah Ndiawar Diop ma kont maa ngi bëgg a kontaan ci suñu doom yi hmm. Sénégal victoire sept balles contre six deuxième victoire baa ngoog Ndiawar ce qui place premier place Ndiawar léegi mun léegi ñun on est fort ñu ngi daje nag ak Émirats arabes unis ci sook mooy mooy mooy football booru géej footballu géej voilà. ah loolu kay ah. ñu ci mënulee xaw ma ko ciy mën. ñëpp tànku neen football rek la ñuy def ci booru géej gi. waaw bàyyi ma ah, doose rek xam nga man dama man dama sénégalais bu dugalee benn bit sax ma kontaan bàyyi ma doose rek. ñu andil football sol dàll ci terrain gazon boobu la gars yi gën a soxla. waa Ndiawar si ah, félicité leen rek félicité leen rek. waaw baax na bu ëllëgee nañ na alhamdulilah rabbil alamin xam nga ñun ñu ngi ñu ngi raam dinañ mës a daan Ndiawar. bon di la wax ni njabar euh, ca Congo Brazzaville day dëkk bu ñuy wax Bukavu. Mm. Euh, neuf personnes ñoo fa dee. Euh, c'était bataille la woon contre rebelles yi ak waay waay ma ko wax na ci wolof de ni nga waxee waay kora ak ak policiers yi. Mm-hmm. voilà ak policiers yi. Mm-hmm. ba neuf personnes ñoo ci gaañu parce que bu ko bu ma ko waxee ci wolof du ma ko xamoon ni ñuy waxee takk der yi voilà na waaw takk der yi. ñoo doon jàng ja mm. ba rey ci neuf. mooy li ma la wax léegi dafa mel ni daal addina bi daal ñun ak policiers yi dañu mel ni ñun dañu leen jure feneen ñu ñu jure ñu feneen loolu la il pense pas que ñi ñuy dóor ak ñi ñuy rey fépp nag daal le monde entier laay wax du Sénégal rek. Mm. il nous tape il nous frappe euh, te ci ñun la ñu jógee. Mm. j'ai pas compris moo tax man leen basta na ngeen arrêté te xam ni euh, lii yëpp dina changé. Mm. est-ce que xam nga lu gën a bon ci àddina njaboot foofu laay jeexale nga nga ngay ngay nga nga nga war a neutre neutre bu ëllëgee mm. nan ngay xoolee ki fi nar a toog bu fekkee ki fi ki ki ngeen di def tey injustice moo am bu toogee yow noo koy xoolee man de du ma la mën a xool. Mm. man de njawar bu ma lay wax lu bon di la wax lu bon man Rama Diagne barke Serigne Touba Mbacke. Mm. buñ ne jàkk man sama ngor mayetuma man man di la jàkk di la xool dama lay bàyyi rek fàtte la dem def demi tour mais sénégalais nag dafa mën euh, ni ma leen di taggee laa leen dee xase dañu mën fëkk jëf c'est des hypo am na ci ñoo xam ne ay hypocrite lañu lii ñuy def nii nii injustice bi ñuy def nii bu ëllëgee ñu toojal ko ma xee gaa mën a dëkk fu ne naa teg sama baaraam fii <laughs> naa teg sama gaa yi ma dëkk fu ne. jërëjëf jërëjëf yow. jërëjëf jërëjëf soxna Rama ñu lay nuyu di la sant dinaa ñëw léegi dugal El Ibrahim Ka. moo indil ñu aussi ay information ca Kaolack parce que Kaolack dafa xumb trop. ah, ah neex na de. waaw waaw waaw ñu ngi koy gërëm di nuyu aussi Matar Diouf sunu correspondant ba nekk ca Fatick. moom ah, par écrit lay lay lay lay joxe mise à jour information yi ah. ca ca bi sunu kër point com. xam nga des fois damay damay fàtte wax mbokk auditeurs yi que ni nañu dem ci site bi c'est un c'est un site mise à jour. wallaay. mu bokk ci site yi gën a rafet fu mu toll ni ci jamono ji ñuy wax nii ba pare. Euh, su ngeen bëggee déglu rajo bi te téléchargé wu leen application bu ngeen demee ci site bi aussi mën ngeen koo déglu il suffit il que nga jaar ci sunuker point com cliquer ci lien rajo bi rek mu ubbil la page bi nga xam ne moom ngay dégloo rajo bi sa téléphone sax mën nga ko dégloo ndeysaan euh, wala nga dem directement rek ci 3w point sunuker fm point com s u n u k e r fm com boo ko defee da ngay gis euh, da ngay déglu rajo bi même ak sa téléphone normal waaye li gën nag mooy ñu télécharger application bi boobu dina la permettre aussi nga am connexion direct nga xam ne yow fii ci biir ci biir ci biir rajo bi nga nekk. waaw ma ñëw dalal euh, El Ibrahim Ka euh, bu ko defee mu faram fàcceel ñu li nga xam ne moo génn ci information. Euh, foofu ca ca Kaolack mais Eli mais soxna Rama xam nga lan lan moo xew démb. lu xew njabar mbaa xam nga rajo bi. abaraba rajo bi dafa am ñoo xamante ne vraiment volontairement dañ koy déglu mais am ñu xam ay dossiers yu bëri surtout les dossiers les dossiers locaux yi nekk ci ay ay gox yoo xamante ne ñun newuñu fa gis nga buñ ci waxee buñ ci waxee ba pare dañ lay woo après di la jox yeneen information ndekete Maria ndekete Mariama Sarr bii ngay dégg ñu lay wax Macky Sall teggi na ko ah. teg euh, teg Mor Ndiaye ra Modou Ndiaye rax ma xaw ma Ah. ndekete ancien jëkkëram la. mooy yéen lii du mu doon. yaa <laughs> ngi tas kon ancien maanaam ancien jëkkër ji. waaw moom la jël di def eh, jabaram bu bu jëkk bu e- maire bi ba pare xoolal jël jëkkër ji ki doon jëkkëram woon ah. waaw ne moom moom la ñu fal. xam nga coow yi coow ñuy ñuy yëpp ndekete soo c'est au maanaam c'est au sein de la même famille. dafa mel ni Omar Sarr mi Mimi Touré rek. waaw waaw voilà. tey ñoom ñaar ñëpp retrouvé wu nañ mag Macky Sall mooy seen chef. ay waay bu ko neexee. mais Macky Sall moo ba Macky Sall moo battre record dajale couple yi ah. daay laa dajale couple yi ba ba jël ko waaw bu ne jëlee kii tey boo déggee mu jël kee gën kër ga tasoon na doon na gën dina gën a tas nag. waaw surtout couple yi nga xam ne couple yi nga xam ne dañoo dañoo tasaaroo mu dajale waat leen rek mais nag loolu pertu la. Ah. kenn kenn du perte. ah waaw kenn perte ah kenn perte. ah waaw kenn du perte lii ah bu dinañu léegi nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ay ay ay ay ay militants seen biir nekk fii démb ndekete coow li ñuy coow yëpp naan fii laa wax kii jàngul xaalisam bi kenn xamul fu mu jógee ma ne Mariama Sarr xam na fi xaalis bi jógee bu ñu kenn fonto allahu akbar. daay man de jaaxle naa. bu ñu moytul sax na leen gars yi boole zappé. ah man de man de man de man de man de. waaw maa ko wax Elimane ubbil sa micro ubbil sa micro. kan. Elimane. waaw ah, Elimane duggagul xam naa dina dina dina woote léegi ndekete coow li ñuy xew yëpp ñuy teg ay ay reportage ah Mariama Sarr dañu ko maanaam Macky Sall da koo da koo ay da ko ne wàccal ndekete yoo danaan wàccal ex mari yéegal ña wàccal sa ex mari yéeg yëpp benn la tooli saara ci biir <laughs> nagi saara. loolu dafa am loolu dafa am coow salaam salaamaaleykum Elimane ñu jox la kàddu gi. waay waay dëkk ba neex na de. Elimane ubbil sa micro nag ñu dégg la bu fekkee ne yaa ngi ñuy dégg. voilà Elimane obligé donc bu fekkee ne da tëj sa micro bi moom te euh, woote bi day doy waar léegi ma yeggali kon information bi ba ba Elimane dellu siwaat Euh, di nuyu sénégalais yépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. ñu leen di nuyu. di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen baalo àq di leen baal euh, di ñaan yàlla yàlla ñu boole jéggal. amiin yaa rabbi euh, yàlla musal ñu ci musiba ak balaa ak déggu ñaaw musal ñu ci seytaane. saxal ñu ci lislaam wallaay saxal ñu ci lislaam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, comme ni nga ko waxee ci ci ci ubbi bi rek. waaw dañuy mhm. féliciter dañuy féliciter Sénégal ci beach ah, soccer li ñuy wax beach soccer. ah yàlla dañuy beach soccer waaw beach soccer mooy football footballu géej. xam nga suufu géej lañ koy lañ koy footballee tànku neen. waaw. waaw football la boo xamante ne tey boo boo demoon ci plage yu Sénégal yi bu bu trois heures jotee jëm six heures ci guddi ba timis di jot. xale mm. xale yaa ngi ci booru géej gi di football rek. laay ndeysaan. moo tax yi dañu ko mën ñu nag Brésil ñoo bokk ci ñu ko ñu koy gën a def. goreem boo ñëwee ci yeneen dëkk yi doo d'habitude dooleen gis ñuy football ci ci ci booru géej. ñoom dañu yor ay terrain de football sol ay godaas di football. ñun nag ñun ñooñ nga xam ne nag euh, dañoo ñàkk moyen dañuy gën a ci booru géej gi. Hmm. moo tax fu mu toll nii yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom dañoo am footballu gazon di sol ay hmm. di nekk ci école de football bi hmm. ñooñu duñu dem di football ci ay ay booru géej loolu moo tax tamit yooyu il ñu sóoraale enjeu yooyu ne loolu moo tax ñun ñu mën ci waaw ah, wallaay mooy ñoo ci mën parce que loolu la ñuy def bis bu nekk yooyu tamit nañ ko sóoraale même du du wàññi dara nag ci ci ci ci ci ndam li Sénégal am waaye nañu ko comprendre noonu ku gis senegal di gagné loolu nga defe ne bu demee ci terrain bu ñuy solee gazon day gagné a ah, ñu ngi góorgóorlu nag ndax ci Afrique ñoo ci mën. waaw ah, loolu kay am na ah. am na lu ñu mën bokk au am na am na am na ci Afrique moom ñoo ci mën ci football léegi nag football bu mag ba nag la ñu bëgg gaay yi gaay <laughs> yi dem ci sax na rama waa bu mag boobu bu ñoom Sadio Mané. waa Pastef nag. woo ñoom mm. comme ni nga ko waxee woote nañu di bëgg dimbali famille ñett ñooñu gaañu fu mu toll nii am nañ mille cent soixante douze participants ci seen euh, ci seen euh, quête boobu ñuy def ci ci koppar dafa am benn site boo xam ne koppar lañ ko tuddee gars yi dañ fay wut dañ fay wut euh, koppar defe naa mooy koppar express voilà am nañu sept millions trois sept millions deux cent onze mille kon dépassé nañu li ma wax man. waaw doublé nañ ko waay waay waay waay bravo waay. nañ ko ay eh, patriote yi sunu mbokk bi nekk ca Finlande moo ma yónnee eh, screenshot bu bu bu bu bu bu ket bi ci boppam. allahu akbar léegi mu jeex. waaw ñun xam nga macha allah information bu ñu bëgg bu ñu bëgg am rek ñi ñuy ñi ñuy dimbali te bëgg émission bi gën a enrichir vraiment dañuy porté wu sax volontaire di ñu defal loo xamante ne. Euh, ñu ñoo ko waroon def wala wut ku ñu koy defal donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. Euh, loolu loolu mooy li nga xam ne moom la ñu dajale. waaye bu bu mu tee li ma leen fàttali woon. li ma leen fàttali mm. woon bu ñu ko fàtte ñoom politiciens yi. Mm. mooy ni ñuy wutee ni ñuy développer une politique de euh, une politique programmatique pour pré pour pour pour pour seen leaders yi fi ñuy dem nañu créer aussi cette même politique sécuritaire pour pour pour pour les mhm. membres yi nga mhm. xamante ne ñoom ñoo volontaire pour être des des des des des gardes dañ leen di defal programme chauffeur yi la même chose mhm. waaw bu ñu ko deful bu ñu ko deful ñi nangoo nekk sécurité rek ñooy ñàkk fayda di dee wallaahi ñii nekk chauffeur rek ñooy ñàkk fayda di dee parce que nelaw a mën ñëpp na gars yi wutal leen ay plan recruter le maximum de chauffeurs ñuy nelaw Mm-hmm. bu nu ko deful dee gi day bëri rek ndax volant mm-hmm. am na yenn accident extraordinaire soxna Rama yooyu gis soo mandiwul mm-hmm. rek da ngaa gëmmentu bilaay ah soo mandiwul da ngaa gëmmentu quoi des fois da ngay gis ay accident ngay bëgg a xalaat naka la lii mën a nekkee c'est parce que dara lu dul nelaw te intoxication mooy indi nelaw gaay ñàkk nelaw gu bëri aussi mooy indi nelaw ci volant surtout mooy surtout oto bi bu dawee tuuti taxaw dawaat tuuti taxaw wala mu jékki-jékki rek daw daw amul dara sa kanam rek nga commencé neex di xalaat ne man bu may yegee fële nelaw rek nelaw ñëw laa ilaaha ci dawal ma ne njariñ loo fekkee olof njaay da koy wax da koy wax buñ ah. exagéré baaxul mais dëgg la hmm, di rêve rek porté wu volontaire ci mbir moo xamante ni sóoraale wuñu la tamit ñàkk fayda la ndeyu hmm? ñooñu ngay garde gënuñu sa ndey ndeyu ñooñu ngay dawal gënuñu sa ndey mbir mi dañ ko war a àndaloo ku ci nekk survie parce que chacun a besoin de l'autre wallaahi ndeysaan que ñi leen di topp ñuy développer programme yoo xamante ne da leen di sóoraale yaakaar rek jabar ah, yenn yaakaar yaakaar yàlla soxna Rama yaakaar ah. yàlla bu yàlla ñëwul yaakaar yaakaar yëpp tas wallaay waa yàlla rek yàlla mooy jaarale sa wërsëg ci nit mu jox la ko Mm-hmm. su ko ko joxee jox ko mu duma ko wala mu jël ko jox ko keneen ko jox la ko mais de toute façon dina wiiri ba egsi ci yow. tey waay mbir yi gis nga Sénégal li ñu war a defar dafa bari. keroog Macky Sall moo doon def tournéem waa leeral gis nga journaliste yi ci dee. ñi ci dee ñëpp ay sofori yay nelaw rek soxna Rama. mais y' a rien d' autre explication euh, dañ koy ragal a wax keneen du la wax beneen explication man nag damay duut baaraam ci mbir mi ñu xam ko loolu rek la du leneen. du ay affaire u dëmm du ay affaire u nooxoor du ay affaire u liggéey. gars yi dañoo sonn ah, dañuy nelaw soo toppee président bi mu dem place A dem B dem C dem D moom ci diggante ñaari ñaari route yi sax mu ngi nelaw ci biir oto bi. nelaw ku ñu dajal faat daale la sax. su su nelawee ba pare bu demee chauffeur am a ngi nelaw moom mu ngi nelaw ay garde corps am a ngi nelaw ñuy changé. Eh, waay ah, waay waay yow nga bëgg a def tour du Sénégal yore ay yore benn staff parce que amuloo xaalis. mais da ngay boo amulee xaalis del espace donc voyage bi. on peut faire le tour du Sénégal mais pas en deux jours. yii gars yi yi sportif la ñu man de man de loolu ko def mais pas en deux jours bu fekkee président bi dina dina ko def en en une semaine su ko neexee am na staff bi ñii di dawal A ak be dañuy noppalu ko ñeneen ñëw dem dem def soo ko buggee toppatoo nag da ngay da ngay organiser mën nañ ko de caravane bi lay topp organiser ko din manière yow boo xamante ne mënuloo jóge Kaolack dem Gàmbi ci saasi wala Casamance noppalu leen nelaw leen ah. au moins huit heures de temps ngeen xayaat dawalaat dem. Eh, nelaw dafa baax ci nit. nelaw rek mooy rey nit ñi nag. la ilaha illallah. waaw boo boo sonnee sax bu boo sonnee yenn nelaw yi sax bu accident bi amee dawaloo sax dangay ngay dee. la ilaha illallah. waaw yenn coono yi sa sa yaram du ko attan na gaa yi na gaa yi organiser waay nañu organiser. j'espère que ah, ni dinañ ko dégg ah j'espère que ni dinañ ko ah, dégg dégg nañ la dégg nañ la bu ah, baax a baax organisation moom ñi ngi ñi ngi ko ñi ñi ngi tànk yi voilà mais dinañ ko dégg voilà léegi nag koo xamante ne sa live bugguloo ci dara boo gisee nit di miir di yàkkamti di di di fanwaate bu ngeen ko bu ngeen ko dee def de léegi léegi léegi léegi ñu use leen de ay affaire da am ful ñoo ko bokk baal yuus bi yuus bi moom doy na ñoo ko bokk waaye waaye nag na doy na doy doy rek ci bakki sëñ Tuuba ñu dimbale rek tax ay xale yu ndaw rek kay dem euh, Séné sénégalais yi nekk Russie foofu ak Ukraine yaa ngi koy wax léegi soxna soxna Rama Jean Baptiste boobu nga mhm. xam ne moom lañu ñu nommé ak mhm. tolli généraux yi ñu ngi leen di jël di sànni ci biti rek yóbbu ambassadeur koo xamante ne fu mu toll ni moom danga you are questionable gaa yi wóoluwuñ la ñu jël la loo yu waar weesu na bul mooy ah, lan mooy ñi nga xamante ne dañuy maanaam seen wóolu te sax dañ dañ dañ ciy def interrogation ah. généraux yi dañ leen di ah. soril gisoo fii gisoo fi benn ay jamono Abdou juuf amoon na fi benn benn général boo xamante ne ci coup d'état bi lañ ko jiiñooñ waaw ah ñu ne de ñu ne dañ doon bëgg coup d'état Abdou Diouf ay booy 1988 89 yooyu mais waa ji waa ji Allemagne lañ ko sànni Allemagne. sànni waaw sànni. lañ ci lañ ci tuddoon ay ñoom colonel Omar Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen. suma addina général Tavares da Souza la tuddoon. yaa ngi dégg tur ah, boobu. gars yi dañ koy eh, jël sànni gars yi buñ la wóoluwulee rek buñ la wóoluwulee rek dañ lay sànni ci biti. waaw buddi la ni la demee la. yi dafay dafay yeelu bëri ci réew mi. événement mars yi eh. passé. dafa wane frustration wane fay wane faay bu bu bu bu mm. sécurité réew mi daf ko wane. waaw te par extraordinaire yàlla moo dogaloon ne loolu du am rek mais mais xoolal lépp a réuniroon mm. pour pour Macky Sall jóge ci réew mi lépp a yow. bilaay c'était à deux quelques quelques de daay gars yi àndoon nag moom yëpp naani kaani ñiy tukki jël seen njaboot daw ndekki nii la ñu ragalee avocat yi rëy génn seen kër ak li muy rafet yëpp gars yi ñëw fekk buñu leen fa fekkoon dañ leen di dañ leen di barbecue daay man de musuma gis loolu waaw ñëpp daw léegi léegi nag ñu doon wax ñëpp naan Sénégal amul bri maanaam Sénégal dañoo du Sénégal amul problème gis nga gis réew mi buy tàkk réew buy tàkk ah. nday mati moo koy taal ah yàlla nañ ci yàlla musal de sa boulimie du pouvoir. et son souhait son souhait autoritaire de diriger ce pays par tous les moyens. loolu mooy doon cause bi taal réew mi lu leer nag laa la wax. Ah, bu mu ko taal de. parce que un con mais réew yi di tàkk yëpp con yi ñoo ko jiite. ñi nga xam ne dañuy def ne ñëpp ay ay kii lañ xam nga boo ñëwee jàpp ñi nga xam ne say principal adversaire lañu. nga xam ne ñii nii ñoom ñoo war a jë ñoom ñoo ma war a remplacer nga ñëw di ku ci nekk nga indil ko ay dossier judiciaire ba éliminer ko légalement ba dootul mënati bokk da ngay defe ne yow léegi tout est ouvert pour que nga toog fi comme ñoom ay Omar Bongo. oh doy na doy commencé dañuy commencé di di di di di xaritoo ak waa Ayadama ak ay waa kër ñoom Paul Biya ak ñoom famille Bongo yi ay ay Denis Sassou Nguesso nga defe ne yow la mm. même chose yow mën nga ko def sa réew. maa ngi dégg seen maa ngi dégg journaliste yi parce que lii nii il faut ñu koy sóoraale nekkul ni nit ñi ñoo bëgg taal réew mais bu ñu gisee koo xamante ne moo bëgg par tous les moyen ne moo ñuy jiite ba faw moom ak njabootam bu réew mi tàkkee ñooñu noppi woon sax bu nu mootul danañ leen ci boole soxna Rama. ah Sénégalais de bu yàlla dëgg la bëgg yàlla dëgg la bëgg. te nit ñi dañuy mhm. sóoraale du ñu sóoraale affaire boobu. sonn nañu de. suñu sóoraalee sénégalais yi ba ñu am lépp lu ñu bëgg. comme ni ñuy toogee mm. France France di nu yore. Mm. ah bu nu ko Sénégal defalee ñu ne nuut sunu yoon nekkatul sax ci ñaata mandaa mais nit ñi duñu am lu ñu lekk nit ñi amuñu lu ñu naan nit ñi mënuñoo faju ñuy toje mani bi di ko yóbbu fu leen neex di tukki di di yar ay biir ay taat léegi nag di jox ci di ci yenn sëriñ si ñu ciy bundaandaat ñu leen di jox ay passeport diplomatique ñuy tukki seen doom yi di noos ñu leen di jox ay marché ñuy ubbi ay ay entreprise léegi nag ñu bëgg nag kooku bu bu bu nit ñi frustré ba génn ñu ne dañu leen wax ñu toog ñu toog gis nga li fi xew li fi xew mois de mars mosuta am ci histoire de Sénégal laajal ku la neex man de mosuma ko fi gis 68 daal amoon na yu yu yu waaye bii moom hmm. ñu ngi koy minimiser nag ñu ngi koy minimiser fu mu toll nii seen journaliste ñi ngi ah. wax maa ngi dégg ay ñaan réew mi buñ ko ku la ko tàlloo nga génn dee am na yenn am na yenn dee yoo xam ne moo gën moo gën yeneen dee xam nga dee dee rek mais am na dee yoo xam ne boo ko defee au moins dinañ xam ne yow jéem nga sax sauver sa bopp quoi tey nga sauver sa bopp bu dee bu dee mënta ñàkk bul nangoo dee comme un rat bu bu dee nango mënta ñàkk mais xoolal Saddam xam nga xam nga moo tax gis nga ay nit yu mag lay grands hommes da nga leen di xam mm. ne ragaluñu sax dee Saddam Hussein dañ ko tegal pendre war ko pendre. Ah, muy muy xuloo muy xuloo ak ñooñu ñoo ñooñu doon yuuxu turu Abu Sadr xaw ma. wallaay maa leen yéen a ñàkk fayda tuug mu naan leen tuug. <laughs> wallaay ndey tuug. oh mm-hmm. naan leen tuug gis nga nit bu gëmee dara. ma joxaat la beneen exemple rek. doo dee comme un xoolal Assane Diouf biñ ko takkee ba war koo dugal ne ko suba ngay ñibbi Sénégal teew ko muy saaga ndey muy muy xorom. day day mais bu dee boo demee ba nga xamante ne dee moo des quel que soit alpha day ñëw ne choisis eh, pas de eh, eh. mourir comme un rat bu ko defee l'histoire retiendra loolu mooy yoon mais nekk ci benn réew quelque que soit alpha ñu bëgg la rey comme un comme comme lu kenn xamul doo lekk koo ci gis fu mu toll nii po bi mu ngi tafu ci kaw yaramam ñuul kukk seen bët yi noox xonk cur kenn mënut a faju ñoom ñuy gonfler ak seen i njaboot di jënd ay oto ay milliards dégg nga ñu ne ñu léegi nag sëriñ si di si noos ñoom ak seeni doom ñu naan dañ leen di jox ndigal pour que ngeen di toog yéen ngeen di toog te sëriñ bi du ñàkk xaalis mhm. lu ngeen am jox ko di espérer suba te moom ñi ngeen di espérer moom ñi mu àndal xam ngeen ko xam ngeen leen bu ñu ñëwee ci kaw lañ leen leen teg ñu toog. cey àdduna. léegi nag nit ñi il faut que ñu koy wax pour que ñu ñu situer les responsabilités dès à présent parce que des fois bu ñu ko deful leneen lii di ñëw dañuy berte te sénégalais yi nelawuñu. le sénégalais est doux te loolu ça dépend des circonstances. réew mi demoon nañu ba ñu defee ne jeex na amatu fi kenn ku fi nekk gis nga il suffit que il ñu laal kenn rek gis nga coow li coow coow li mel noo xamante ne incontrôlable doy na ñuy wax ay ay ay ay bavure policière ay brutalité policière loolu day loolu ci situation normal mais bis nga bi bi bi pënd gi wuuree ba tàkk-tàkk mm-hmm. gi bari xam nañ ne mënuñu ko mm-hmm. mënu attanuñu ko doy na waar ndax policiers yi ñu nag ñoom ñoo dëkk policiers yi ban salaire la ñu am bu gën keneen lu dul lu dul seen position bi nu am kenn may kenn may kenn mayetu leen jabar sax ñoom daanaka ñoom ak armée yi kenn mayetu leen jabar officier rek ñoo fiy takk ay jabar fu mu toll nii te man yi nuy toje la réew mi ne dañ ko war a organiser ñëpp tolloo ci ñëpp tolloo chance devant l'opportunité que tous les secteurs fonctionnent normalement que la magouille disparaisse loolu moo fi war a am. dafa bokk ci suñu ADN. dem de. mais da leen di dégg ñu yónni seen journaliste naan réew mi ku ko taal lii wala laa te kii taal réew mi di këpp essance ngeen defe ne ndox la ñuy këpp pour mu sedd fekk moom essance lay këpp. tey àdduna. ñu ne du ñu wax ak du ñu wax ak eh, du ñu wax ci ci mbirum troisième mandaa bi parce que suñu ko waxee nit ju liggéey. ba pare am ñu koy journaliste yi di développer ay ay thèmes naan élection yi bu ko gañee day ubbi troisième mandat bi da koy yokk troisième mandat moo fi mënta am te gis nga loolu sëriñ sii di joxe ndigal nanu ko xam loolu la ñu wax mm-hmm. kenn du ko négocier léegi nag sénégalais yi ñu ngi ne tekk man may wax ci loo xamante ne bu ñu ci jugul mooy taal réew mi sunu doom yi di dee waaye nag fu mu toll nii affaire baa ngi commencé soppeeku parce que léegi bu réew mi tàkkee ñoom ñoom ñoom seen vie moo nekk en danger du gis nga ko fi bii paase wane na ko nanu ko moytu. gaa xam nañu fi ñu def de gaa yi xam nañu fi ñu dëkk xam nañu seeni famille dëkk taal nañu seeni këru famille yi taal nañu seeni kër ñoom it ñoo dëkk ak ñoom dañoo dëkk feneen fudul ak ñoom bi yoon bi mu takkee seen kër yi la jubal benn sénégalais deewu ci Hmm, war looloo warul nag njabar warul malgré malgré sa malgré policier bu saay-saay boobu yu yu saay-saay yooyu nga xam ne dañuy yore seen seen seen fital tiré à bout portant pendant jël ay 300 mètres nga gis waaj ji visé xale bi ba ba ba mu neex ko mu toj bopp bi allahu akbar doomaraam jooju gis ngeen ko waay ab policier la moo ko def est-ce que est-ce que enquête nañ ko pour jàpp ko defuñu ko war nañ ko jàpp ko dañ ko war a xale yaa nga toog fële di manifester waaw ñu filmer ko xoolal muy diir xale bi ba mu nekk nu ko tuy bopp bi explosé ci manifestation yi la xewe ay waaye kooku xanaa amul xol ay saay-saay lañu parce que dañu defe ne bu ñu reyee kenn noonu après gars yi dañuy tiit kii taal réew mi xam ngeen ko bu ñu bu ñu defoon ni xeex bi ñu xeex moo tax mu falu bi ko fi baayam doon bëgg a def loolu lañu ñu war a bàyyi nañu bàyyi bëgg bëgg nguur. bàyyam loolu nañu bi ngeen di loué bi ngeen di loué xaar yàlla ak ak ak ak ak ak ak euh, sikap dégg nga ak derkale boobu kenn xalaatul woon ne di ngeen doon président. yàlla bu la joxee nguur gi jëlal nga doxal li nga mën a doxal nga bàyyi keneen mu doxal loolu la yàlla digle. moo gën waaye yàlla man la fi teg par force du ma fi jugee dinaa def manigas ba duma fi jugee defe na yaa moom réew mi loolu loolu du ngor loolu dëmm yi ñoo koy def dëmm yi Afrique bi yëpp dëmm yi ñoo ci fees moo tax muy tàkk noonu les sanguinaires mais boo xoolee réew yu ñu nekk ni ay Amérique ni xoolal réew yu ñu nekk da ngay ñëw door sa deux ans ah soo amee soo amee du jip nga dem Obama nga defe ne doyal na doyalul de mais faaw mu dem looy dund galanterie hmm? gentleman nga ñëw xam ne réew mi moomu loo ko mais ñun ko koo ne tubaab yee la gën nga ne gënuñu ñun ñoo ne ñoo leen gën lépp bu ñu waxee ñu tudd suñu sëriñ si ñoo ne ñoo gën ñëpp ñooñu lu ñu saay saay saay saay respecté nañu seen peuple bu mandat bi jotee rek xam nañu dañuy dañuy dem. mais ñun galanterie bi ñuy demee sax xamoo mais ñun ñun ñun c'est nègre que nous sommes dañu ay nit ñun duñu ay nit. billaahi golo yi rek la nu tane te loolu suñu njiit ñi nga koy seetee ak ñi nga xamante ne ñoo leen di défendre ngay xamante ne du ñu ay nit du ñu ay nit du ñu ko nangu nag mais du ñu ko parce que koo ciy waxal sax mu lay jéem a expliquer pour convaincre la ne ne lii war naa mën a nekk rek moo lay wan ne wérul mais bu ñu respecté woon suñu dëkk yi ni ko tubaab yi respecté seen bos moo tax tubaab yi mm. dana ñu jiite ba ba ñuy dee fii ak ñun respecté wuñu suñu concitoyens yi fii ak respecté constitution yi fii ak binduñu constitution yoo xam ne dañu koy respecté mu nekk la loi universelle de la nation ki s'applique à tous kenn bañ ko di modifier billahi tubaab yi dañu nuy mën saa su nekk ndax kenn du nangoo dee pour ta nation kenn kan moo nag man dinaa nangoo dee Sénégal boo xamante ne ay baadoolo ñoo ñëw ne dañuy jiite par par force maa lànk du ko hmm. def te du man rek ah, ah loolu moo wane position économique bi ñu amee looloo ko ah. wane mais sa dëkk américains yi ñoo gën a saay-saay ci àdduna bi te xoolal gis nga bu ñu demee ba desul lu dul seen dëkk dañuy dee pour seen dëkk ñun nag bu demoon ba dee suñu dëkk gars yi bu ñuy am yoonu génn bu ñu leen forcé wul leen ñu daw génn dëkk ba landatu la ñuy def mbaa ñu ne menten ñi mes ak dëkk boo xam ne boo ci boo ci tuuree sa deret malgré sa maam yi ci tuul seen deret yëpp ngir liberté sëriñ si def ci am ci ay problème yu dul jeex ay baadoolu ñoo koy jënd di ko asaaloo or bi ñu koy sàcc saba dollar di ko dugal ci ay avion muy dem bato yu commencé di sàcc su di jël sunu sunu sunu gaz yi ak sunu ak sunu pétrole bi ñuy gëm loo population bi ne 2024 lañ koy commencé lañ koy commencé ngacc nga xam ne nga xam ne ñun wéruñu en bon français mu leer ñu ne la kenn mënut a def ñaari mandat consécutif yu tëj lépp ñu commencé ba léegi ay hypocrite di nekk ci média yi parce que dañ leen di financer parce que dañ leen di jox ay koppar ñu bëgg a gëmloo la population que ni loolu war naa mën a nekk quoi ku ci nekk di jaay naka ngay manipuler la francais te loolu un plus un xaw ma ndax yow tu es un agrégé en mathématiques ou non un plus un égale deux c'est tout école école CI xam nañu ko boo demee ba doctorat mathématique xam nañu ko mënuloo indi leneen lu dul loolu noonu la mbir mi leeree ah. ku ci nekk bëgg a jiital jiital sa avantage quoi mu xanaa xaalis da dul doy non dañoo mais dañoo feebar ay feebar la loolu feebar la ah. xanaa xamoo xale boo xamante wala yow loolu mosuloo ko gis boo demoon Sénégal am na xale yoo xam ne dañuy lekk ba suur. Hmm. di nëbbaat di nëb di nëbbaat lekk waaw polémique dañuy feebar dañuy defe lekk gi suba dootul am dañ koy nëbb. Ah, ñoom noonu la ñu mel ndax dañu jóge ci ci pauvreté gu metti léegi nag ñoom au ñu faj sénégalais yi mel noonu noonoo non ñoom dañuy gën a tiit di gën a sàcc. ay waay ji de waay ragal nañoo dellu nekk un citoyen ordinaire quoi. moo tax wor bi nekk ci politique bi gisuloo ko li nga jékki-jékki rek nit ñi envahir les post post poste nominatif yi nii ngay gis nii ah hmm. mooy mooy élection locale yi nga gis nii poste électif yi ñu war a def pour pour pour pour pour euh, commune yeeg ñoom seen ñoom ñëpp doon ay candidat parce que nit ñi liggéey la ñuy wut lii benn signe la boo xamante ne ba tey gisaguma ko ko jàngat xanaa xamoo ñëpp ni ñu jugee bëgg doon ay maire man de jalan jaaxal wala nekk ci conseil départemental ak yu demee noonu xam nga lu ko waral wutum liggéey rek la du leneen soxna Rama. Euh, si ñu wutum liggéey la sàccaale dolli ci sàcc gi quand mais du sénégalais yi ñu ngi dëkk bitim réew. yor ay nationalité te renuñu for dara pourquoi parce que dañoo am liggéey. Hmm. amuñu jot pour dem dugg ci ay poste électif ñu ko liggéey dem tëdd na la yore sa njaboot. Sénégal nag comme que amul liggéey amul dara tout est bon pour trouver du boulot. et tout est bon pour être milliardaire aussi. ñoom ñii ñëpp liggéey la ñuy wut ah. moo tax yaa ngi wax yaa ngi wax xëccoo beeg démb ñu ñu ñu ñuy déposé ji mais liggéey la ko c'est comme on cherche du boulot. liggéey grandal les gens cherchent du boulot. et ce boulot se trouve sur le terrain politique. ca ca ca foofu lañ koy wutijee moo tax ñoom ñëpp ñu song ko mbër yi amatul làmb ñuy waaj a retraité dégg nga comédiens yeeg animateur de rajo yi bëgg dara ñoom tamit ñu ne pourquoi pas wutum liggéey la soxna eh. Rama wutum liggéey. mafia politique. ah loolu nag ñu jàngat ko techniquement parce que loo gis dañ ko war a jàngat. mais lii nii mhm. kenn du ko jàngat ñoom ñëpp dañ ko zappé. tey ku ci nekk di préparer population bi. réew mi bu tàkkee président bi wax ne day seet yoon possibilité ren foor pour pour pour pour un troisième mandat moo taal réew mi moo koy taal ñu ngi jël gars yi ñi nga xamante ne wóoluñu leen wàcce nañu leen ñi ñu poussé leen à la retraite rapidement ñeneen ñi wóoluwuñu leen ñu génne leen dëkk bi a à l'instant mu ngi am boo demoon xool boo demoon xool fal yi conseil des ministres demal nga xool ko hmm. dama koy suivre communiqué bi saa yi génnee dama koy siil parce que dama ciy jël ay notes hmm. aba ah noonu laa ci defoon noonu laa ci defoon note ba génne nomination yi nga xam ne 2012 ba 2000 2016 2017 yéen a ngi koy fàttaliku. nga xam ne mm. benn xeet rek lañ doon fal. dëgg la yaa <laughs> loolu xawoon fi maa ko génne woon. Mm-hmm. waaw donc boo ko suivre doo ko gis. parce que yooyu décision yooyu président bi di gis ñu bëri duñ ko suivre ah, ay conseil des ministres ñoom dañoo xam ne sénégalais yi duñ ko suivre moo tax ñu koy génne. su ko gars yi siwoon suivre bis bu nekk ñu arrêté ko. Ah. parce que bëgguñu leer bëgguñu lu leer ñoom bëgguñu lu leer mais dañoo xam ne kenn du ko suivre wala boog ñu ëpp duñu ko suivre wala buñ ko suivre rek dañuy noppi moo tax ñu koy génnee. Sénégal yi damaa defe dañoo découragé. léegi nag boo xoolee li xewoon mois de mars ba tey nga xool ñaata nit la ñu bousee appelé à d'autres fonctions indi keneen appelé ñu ngi maanaam échiquier bi ñu ngi koy teg. ñu ngi teg dàq nag gendarme boobu nga xam ne ndeysaan. am na ñu bari ñu na ñu bari ñu bu ñu ngi leen ñu ngi leen di bougeloo parce que dañoo defe ne ñoom faay bi ñoom la. moo lay wane ne ñoom li ñu bëgg a def bàyyee gunu ko léegi nag sëriñ si nga xam ne lu juk rek ñoom ñu wax nañu wax ci lii nañu wax ne troisième mandat bu mu fi am ñoom bu ñu waxoon rek solution bi am. mais dañu am ñoo xam ne dañu nekk dañu nekk seen ay position di doon ay complexe jànge ay daara ay booy ñëw di leen lakk ay français ñu complexe duñu ko mos a ooy di utiliser seen position yi ñu am ngir am amaduwa nit ñi yooyu mënta ne yooyu mu ngi bëgg a jeex mars wane na ko nag bu ñu taal réew mi na président bi organiser ay élection nit ñi fal ki neex ñu avancé loolu mu la réew mi di mën a amee jàmm ñun de loolu la ñu bëgg infiltré nañ ñu nag bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. léegi nag un président con moom mooy moom mooy taal réew mi nag bëgg rëcc waaye nag xam ne moom bu rëccee ay mbokkam yi du ñu rëcc de ndax bi ñuy taal seen kër yi fekkewuñu ko. allahu akbar loolu waay déet waay waay waay ah ñoom ñoo ñoom nanu ko xam parce que fii xamuñu ko parce que sénégalais day ragal sénégalais day ragal de mais du sóoraale conséquences yi nara yi ko nara dal day defe ne sénégalais ay mm. con lañu. mais nag bu ñu leen bu ñu xamee ne nit ñi ragaluñu ta jaral na leen seen bakkan. Hmm. duñu ko def. bu ñu melee bu ñu melee ni Assane Diouf. na ko na ko ñëpp na lii moo jara waxtaane mais di ko hmm. négocier comme si dañu nekk ci dans une négociation yow nga bëgg yow xeexuloo kenn ne la moom dafa bëgg a xeex mais soxna Rama boo faywul mu duma la di. ah day duma di. man xeexuma génnewu la ci mbir mi de boo demee ba nga xamante ne xeex moo fi sës xeexal. du nu xeex nag. waaw boo demee ba nga xam ne xeex xeex moo fi sës xeexal buñ la dóoree nga xam ne xeex nga. suñu doom yi la ñuy bàyyi ñu. mais ñu ne la ñu ne la xeex jot na nga naan man damay ñibbi bàyyi leen ma waa baal ma mu dóor la mbéj nga ne waa baal ma mu dóor la bulon ci biir mais doo siggi fayu xeex moo fi sës parce que daw nga ah, négocier nga négocier nga ñu ne la par force tey dañ lay dóor léegi nag dóor yi lay dóor te mooy gën a metti dóor yi nga xamante ne yow boo fayoo moom dina yëg ne lii saf na. ah nag si am na ñoo nit ñi commencé di wax ci loolu. moo gën ñuy bàyyi journaliste yi nu nuy nu ñuy sóoraale di ñu wax naan ñu loolu c'est possible ay élection yi mooy déterminer ay troisième manda na ci nit ñi wax léegi ah. bu ngeen bàyyee ba mu trop ba mu trop tard c'est trop tard. il faut battre le fer quand il est chaud. ñuy teg ay classement fu mu toll nii di wut ñan maire la ñuy teg ci ay circonscription bu ko defee ñoom ñu am doole ñuy doog a am ñuy doog a am fit di wax ne dañuy dem troisième manda loolu nag bu ñu ko defee nag lii dee ci yéen lay jóge yéen ñu koy waaj a bañ nag bu boobaa lañu leen di duma ba ngeen di bëgg a dee ay waay waay waay bu ñu duma waay duma ah. bi laa moo ñaaw looloo fi xew nag loolooy loolooy wax ji lu ko hmm, wax du bi daal bari cee bokk. waaw loolooy wax ji nag te loolu tel mbir mi xoolal lu leer la nag ba pare dafa leer ba pare. ah leer na de. mën nañu déet de. waaw waaw waaw nañ ko teeral leeral. parce que classement bi ñuy teg yëpp lii fan yi fan yëpp maa ngi bëgg a wax lii mais ñemewuma ko. dafa am ñu may déglu ah. ñoo xamante ne damay rus sax ñuy déglu lii may wax nii. ah déet waxal. waaw dëgg la yàlla bëgg kat. léegi nag léegi nag boo déggee ñu ne leen nee leen tekk dinaa leen wax kan laay teg fan. c'est parce que dañoo bëgg ñooñu bu ñu gañee ñooñu ba ñu yore occupé terrain bi yëpp ñuy doog a am fit nag jox leen ay moyens ñu commencé mater nit ñi dans leur propre quartier affaire bi ay technique la rek xam mbirum politique moom ay affaire technique la rek. man sax damaa jaaxle. lu tax ñuy organiser élection yi man j'ai pas compris. man ba léegi mënuñu ko bàyyi rek ñeneen organiser ko bu fekkee dañu bëgg loo xam ne dafa transparent ah bu ngeen duggee ngeen wax ma man de ah. damaa damaa jaaxle. ma teg benn élément bu ma bu ma saawaay yónnee woon muy euh, Elimane. Euh, Elimane problème de connexion. dafa am invité invité de la rédaction Mouhamadou Junior la tudd. Mouhamadou Junior Cissé. moom mhm. la moom moom mooy rédacteur en chef bu rajo municipal ñu déglu ko moom li muy wax ci li nga xam ne moo xew ci Kaolack. Mahamadou Junior Cissé yow yaay rédacteur en chef bu rajo municipal bu Kaolack euh, fu mu toll nii tamit rek fii ci diwaanu Kaolack ñu gis ne tolluwaayu politique bi jaxasoo na maanaam ñi nga xamante ne bi euh, ñoom ñoo nekk politiciens yi ci biir dëkk bi temps yi mbiccoo bi ak mbaccoo bi gis nañu ko euh, ginnaaw bi nga xamante ne bii sax euh, njiitu réew mi Macky Sall daal dinay joxe rek ki nga xamante ne moom moo fas yéene jiite euh, Benno Bokk Yaakaar fii ni si diwaan bi muy Mon Ndiaye Rahma loolu nag indi na ay yorente yu bëri ci ci parti bi ni ban jàngat nga ci am en tant que journaliste. waaw li nu mel fallait s'y attendre maanaam deesoon nañ kaa mën a xaar ndax. ay responsable politique yu mag ñoom ñoo faree ci diwaanu Kaolack te njiitu réew mi Macky Sall waxoon na ni moom mooy tànn euh, ñi doon teddali sa jëm ci wooteb mbala tànnub gox goxaati choix wu Modou Ndiaye Rahma bett na ñenn ñi bettul ñenn ñi euh, ku gis li nga xamante ni moom moo di euh, liggéey bi mu doon amal ay itamit image bi nga xamante ne moom la doon joxe ci kanamu njiitu réew mi Macky sàll doon na loo xamante ni bettul ñenn ñi bett na nag ñi doon njegeñaale madame le maire Mariama Sarr loolee sax tax ba ñi fipp ñoom ñooñe euh, di daal di sàkku ci njiitu réew mi mu dindi décision bi nga xamante ne jël na ko choix bi mu porté ci Modou Ndiaye ma wante loolu moom euh, njiitu réew mi xalaatu ko ndax kilifa la te kàddu kilifa moom euh, doo wax ba pare ñëwaat naan yaa ngi dellu ginnaaw rawatina ci lu jëm ci ay diw laa tànn mbala diw tànn ma ko yooyu euh, li des kañ moom mooy soit ñaari option yi ñu rangé wu derrière Modou Ndiaye ma mbala ñu daal proposer seen leader liste parallèle euh, madame le maire nag booba ak léegi waxagul ci lu jëm ci li nga xamante ni moom moo di sujet bi gis nañ ni sax moom lañ tànnoon joxoon ko mu jiite département bi mun jaarax ma commune bi wante gannaaw gi madame le maire moom daf ko bañ loole moom moo tax euh, njiitu réew mi Macky Sall daal di jiital Pape Demba bi tey njiitalub euh, Sénélec ak lu mu ci mënti doon lii am ci biir Benno Bokk Yaakaar du leen gën dooleel mais daf leen féewale daf leen di xaajale day leen di néewal kàttan loole mën a profito bu baax a baax kenn ci seen adversaire de taille yi ku ci mel ni Serigne Mboup gis nañ ko am na baat lool ci biir diwaan wi ba ñenn commencé nañ ko jox bopp noonee day tax ba ñii di waa Benno Bokk Yaakaar mën nañoo lajj fii ci diwaan wi te jàpp naa ne am na ñoo xamante ne jege ñaale maire bi lañ loolu lañ bëgg parce que ñoom Modou Ndiaye Rahma bëgguñ mu jiite leen situation bi nga xamante ni moom moo fi am ci diggante bi la nag ñëpp xam nañ ko moom mooy Modou Ndiaye Rahma moo doonoon boroom këru madame le maire Mariama Sarr nga génnee ex dugal ex day doon loo xamante ni ñu bari rafetlu wuñ ko njiitu réew mi Macky nag moom moo xam lan moo waral mu daal di def euh, choix bi nu mel am na ñiy dem bay wax ne am na benn influence religieuse bu ci am ak lu mu ci mënti doon daal euh, Macky Sall moom moo mën a expliquer lan moo tax mu def choix bi wante xam naa ni ni buñ continuer ci situation bi nu mel moom euh, benn bokk yaakaar dina am ay jafe-jafe lool ngir gagner élection locale maanaam tànneefu gox-goxaat yi jaraaf yi fii ci diwaan bi rawatina lu jëm ci euh, commune bi euh, bu weesoo loolu gis nañ yeneen i coalition yi nga xamante ni ñu ngi juddu ñoom ñooñee lu ci mel ni jàmmi gox yi bu ñoom Fadel Baro bu Y'en a gis nañ ko ñoom it commencé nañoo ñëw ak yeneen i coalition yoo xamante ne ñoom it ñu ngi wone seen bopp ak lu mu ci mënti doon fii ak suba daañu xam dëgg-dëgg ñan ñooy candidat ndax euh, léegi tey Euh, liste bi ñu daal di koy tëj. mu ngi noonu yaa ngi koy wax léegi euh, ñu gis ne fan yi ci ginnaaw kenn ci setu Maolana Cheikh al Islam yi di Mounzir Niass daal dinay génn moom it euh, ne àndul ak li njiit réew mi def tànn ki nga xamante ne moom mooy Moon Ndiaye Rahma nee na Moon Ndiaye Rahma dafa jaxase ki nga xamante ne bii moom mooy Macky Sall ak moom ndax wax ko ne ko moom du dem mi Medina Baye jubóol ak waa Medina bàyyi loolu dafa mel ni sànq moom nga doon junj noonu est-ce que loolu tamit mën nga ci dikkaat. waaw Mounzir bokk na ci ay. ay sët yi nga xamante ni dañuy def politique sët yooyee di sëtu ay kilifa diine ñiy def politique gis nañ ko du Medina Baye kese Touba. Tiwaawoon feneen ak feneen ay ndaw yoo xamante ni ñu ngi bokk ci famille yooyu di def politique loolu yi tamit lu baax la euh, te nit ku nekk yi tamit day am appartenance foo xamante ne foofu lay bokk moom ak madame le maire la bokkal Kanta Modou Ndiaye moom moo dem wax fii mbala jaxase fële yooyu yëpp euh, jàpp naa ne warul mën a tax njiitu réew mi Macky Sall di teggi nit pour dugal nit parce que euh, amul sénégalais bu gën a informé wu njiitu réew mi Macky Sall li nga xam li xam fii di wax loolee la fa xam mbala lu ko raw ndax waa BMS ñu ngi fi dañuy bind rapport chaque jour di ko ko yónnee yeneen i kii itamit noonu la def pour moom njiitu réew mi Macky Sall donc euh, bu fekkee que ni euh, dafa euh, choisir diw à la place de diw pour ay wax diw jax seen indi fii teg fii non loolu moom mm, ay wax yu woo xamante ni la daal dafa légère ba mu ëpp mën nañ kaa bañ a téye mais xam naa ne situation bu am ci diggante gàmm gi gannaaw gàmm ak ci investiture yi doon na situation boo xamante ni impacté na bu baax a baax ci choix wu njiitu réew mi Macky Sall maa ngi ko doon wax sànq image bi Modou Ndiaye Rahma def. ànd ak kilifa diine yi ak image bi nga xamante ne affiché nañ ko euh, madame le maire Mariama Sarr par rapport ak taxawaayam biir Médina doon na loo xamante ni impacté na ci choix investiture bi mais ak lum ci mënti doon Euh, dañoo war a xam ni ñu sende mbir yi jël wàllu politique tegee nale jëpp wàllu diine parce que ngëm la et c'est beaucoup c'est au de de de la politique ñu daal di koy jël tegee na la ñu jël jéem a xool naka la def ba ñenn politique yi bu ñuy def seeni mbir mbala seeni luubal buñ ci laxas diine bi pour des fins politiques ak yooyu yooyu daal nañ ko moytu kilifa diine aussi tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mais ma ni yenn yi moom moo tax xëy na xalaatu Mounzir la loolu dañ ko koy nangul euh, moom moo tax mais yenn yi mais li ma lay expliquer daal que ni démarche yi yooyu mën na tax ba choix bi impacté na ci choix bi mais diw moom moo dem wax ni président gis nga fii lii mbala fii lii loolu moom mm, euh, Moundiaye moo wax fii lii mbala kii loolu moom euh, yaakaar naa ne du loolu moom moo tax parce que Moundiaye rax ma du taxaw ak Macky Sall ne ko tànn ma loolu kenn du ko def taxaw ak kii tànn ne tànn ma li ma lay njëkk a laaj mooy lu tax ma war la tànn pourquoi yow et pas les autres mais daal de toute façon choix bi am na nañ xool seen biir madame le maire bu waxoon sax ñu mën a analyser euh, ci situation association bi j'espère que ni dina remobiliser troubam waxtaan ak ñoom ñoom it ñu giif wàcc dem ci bañeeru Benno Bokk Yaakaar gën a dooleel seen coalition sinon daañu daanu laal moom si sûr parce que déjà madame le maire base bu dëgër la même su fekkee ne am na ñu koy ŋàññi euh, ci diwaan wi am na base politique boo xamante ne bu dëgër la parce que ñi ngay jox xaalis ñu lay topp ak ñi nga xamante ni dañu fidèle ci yow bokk ci sa base bokk. mu ngi noonu Mouhamadou Junior Cissé rajo suñu ko defee mu ngi lay gërëm. maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen ci liggéey bi jërë ngeen. jërëjëf kooku nekkoon euh, Mouhamadou Cissé moom la Eliman Eli Ibrahim Kane xam naa élément boobu la ñu bëggoon euh, jox ba pare waxtaane ci waaye malheureusement dafa am problème de connexion so uh-huh. soxna Rama xam nga euh, madame Angélique Manga hmm? te mu nekkoon ministre ministre conseiller de Macky Sall ci moment bii moom la nekkoon uh-huh. léegi nag moom bàyyi na génn na Benno Bokk Yaakaar dem ànd ak Ablaye Balde ah waaw nee na dañuy voyage mais ngëm-ngëm la tamit parce que xam nga xam nga noonu waa Casamance yi loolu moo ma si ma neex si ñoom de ñoom hmm. ñoom ñu bëri ci ñoom dañoo régionaliste mooy maanaam seen région dañ koo fonk képp kuy dee pour seen région dañ lay fonk bu coow li wuree ñu dem ànd ak ña ña parce que seen dëkk boobu rek la amaa ama ah. xam naa ki ngay wax. femme bi fa nekk woon journaliste. nekkoon ma ne nekk na fi sax amba amba amba yóbbu nañ ko ci ambassade journaliste la woon su ma juumalee. waaw kay xam naa dem na ànd ak Ablaye Balde fu mu toll nii coow li nit ñi comprendre nañu ne. Ah. njiitu réew mi li muy doxal ñu bëri comprendre nañ mm. ne ay jeu d'échec la pour nax nit ñi rek pour pour pour boppam eh léegi nag gis nañ ne la fin est imminente bu fekkee ne moom xamul maanaam sóoraalewul sénégalais yi mujj gu doy waar la la la la nar a yóbbu senegal te boppam la koy yóbbu su fekkee am na ku ci bëgg a yokk dara ma jox ko kàddu gi tey Ahmadou est-ce que Ahmadou Diop mu ngi en ligne tey sax Ahmadou ah, eh, Diop man kay maa ngi nekk en ligne dama ah, eh, sëñ sëñ Ahmadou ma jox la kàddu gi waaw waaw parce que voilà bon waaw kon maa ngi lay nuyu euh, Ndiawar ak soxna Rama Diagne ak euh, ak tous les sénégalais ak sénégalaises waaw euh, am nga loo jëkk a wax mhm. sa ñaan gi mhm. waaw ñaan gi rafet na yàlla moom mm. liñ ko ñaan rek la lay jox mm. kon amin ci sa ñaan gi mm. yàlla moom moo nekk le miséricordieux le clément le tout puissant maître ak lépp loo xam ne mooy dox waaw amin wax nga fii ne méttitlu nga sénégalais yi dee ci géej gi évidemment et africains qui bravent les terres et les mères au de leur vie et à la merci des requins et des passeurs qui wow. sans foi ni loi waaw loolu moom daanaka moo am ci Afrique waaye loolu politicaar yi duñ ci mettre le doigt en particulier ki nga xam ne nee na la la euh, la rupture lay def te nekk rupture c'est une rupture éclope waaw maître de reniement parce que nee na mooy maître des horloges waaw te moo ko teg boppam ndax day foqar ci kenn éliru ko 2019 moo falaat boppam évidemment <laughs> kooku noonu rek la ni mën a gouverner waaye wax rek moo ci nekk malheureusement euh, le discours ne passe pas parce que euh, ci Afrique te waxoon naa ci mo ci ci fële ci Zimbabwe waaw ñun dañuy commencer bien waaye nag on finit toujours mal ndax on s'arrête toujours à mi-chemin waaw Njawar am na lu mu ci wax ci mois euh, mars dernier quinze personnes ont péri mel ni dara amul loolu c'est crime waaw crime la parmi des crimes yoo xam ne kenn maanaam kenn du ci sax maanaam nit ñi ay bàyyi ma la leen teg voilà c'est tout que voulez-vous c'est normal c'est normal dans un pays boo xam ne ñëpp dañuy abdiquer France bu defoon noonu États-Unis def noonu ñoom duñ nekk fi ñu nekk waaye nag ñun danoo nekk ci beneen ci beneen euh, adduna voilà tel pays tel citoyen la répétition est pédagogique faut-il que nag ñu xam ko voilà Benno Bokk Yaakaar eh, ma ne Mariama Sarr ak compagnie même chose la et qu'ils perdent c'est du pareil au même ñoom ñëpp voilà amul benn changement mais <laughs> tout revient euh, à Macky muy keneen ak Saint-Louis que euh, ñaan ak ñoom ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal kon ana changement bi amul benn changement changement amu fi voilà et tout continue c'est tout parce que Ndiawar jukki na fii. Euh, ñi nga xam ne accident sécurité mais li ma xam day mooy état ci boppam état mënta am sans nit ñi nit ñi ñooy fay seeni impo ak seeni taxe wala comme il incombe à l'État d'assurer la sécurité des citoyens de tous les acteurs politiques loolu moo jaadu voilà surtout tout buñ ko def seen yoon nekku ci par rapport à sa mais Macky moom mi ngi bu ndaanda di utiliser massivement les moyens de l'État jusqu'à en abuser c'est ça le c'est ça le c'est ça le drame sénégalais Macky Sall mais évidemment koo xam ne da ngaa nekk un aventurier mais un aventurier sàcc ses milliards mais kooku noonu rek la ñuy mën a góor ne naan fii dañ fee ñaan waaw d'accord ñaan nañ fi waaye ndimbal da ciy fekk loxol borom ay ambassade Sénégal rek laa gis ay ambassadeur ñu koy jox ay militaires c'est étrange j'ai jamais vu ça moom le mësta am ci àdduna jamais de la vie c'est pas parce que militaire lañ militaire ay armes lañ am kon boo leen nommé ambassadeur kon lu tax xanaa kon corruption la wala leneen ñi nga xam ne ñoo génnee ci école yi Sénégal dañoo mën a jàng lu tax kenn du leen def ambassadeur parce que ñooñu kenn du leen woo mat militaire nag dafa tàmm ñu ko digtal li muy def parce que boo ko joxee wala ci ci euh, ci nag wi <laughs> dara du ko surtout Sénégal foofu la toll le rapport de force moo war a primer surtout voilà la réalité parce que kii ku yaakaar ne day dana wàññi gàllankooram yaa ngi nax sa bopp Macky Sall du mas a wàññi gaal dem jàng ko Macky Sall dafa feebar wax naa ko malheureusement nit ñi duñ comprendre Macky Sall est atteint de schizophrénie dafa am pathologie renversante dans son ADN voilà le problème parce que c'est un accident de l'histoire dafa maanaam dafa am problème psychique voilà dafa manqué Macky Sall dafa manqué nit faiblesse la am complexe la am parce que yaakaaratul na dana nekk fii mu nekk voilà ñoo tooñ suñu bopp dañoo yaa nit ñi dañoo yaakaaroon ne Ablaye Wade lañ fu bëggoon a jële yaakaar ne réew mi danañ ko teg ci loxoy jub voilà léegi nag évidemment liñ ciy fekk évidemment fekk nañ ci voilà et ça na et neuf ans quand même dafa bari ñoo xam ne un village entier plus qu'un village entier ñoom rek lay nome ñuy sàcc kenn leen woo ci justice bi waaw ñoom rek la ñuy woo euh, duñ woo euh, euh, kenn bu leen woo waaw élection am soi-disant waaw mooy seet ki nga xam ne moo war a nekk candidat wala kii nekkul candidat xanaa kon léegi kon jëru ñu naan un état régalien amu fi voilà c'est Voilà, parce qu'il s'en fout de tout. Parce que Macky n'était pas bien préparé pour nous occuper poste B. Amout, c'est une enzyme. Voilà. C'est tout. Loolu mooy Sénégal jërëjëf. waaw salaamaaleykum sëñ Jawar. ah tey teel ngaa woote de démb da ngaa yéex a woote. ah <laughs> waaw de day dem sa kii bi dafa guddoon. boo yeexee boo yeexee woote rek ah taalibe bi day day day. aaru dañuy factoriser non noonu la sax mbir moom loo gis moom daf war a jaar yoon. te eh, fii tamit voilà noonu la alhamdulilah ba nga ko comprendre. non mais tamit mënuñu nekk fii di combattre l'injustice ba pare ñun tam ñu koy def. wallaay wax nga dëgg. Euh, loolu tamit moom euh, xeluwul sax quoi. Mhm, mhm. parce que. lépp li ñu fiy wax rek dañu bëgg rek di ko partager sénégalais yi man su fekkee am na kenn rek koo xam ni jëriñ na ko rek loolu c'est déjà exactement. oui donc di nuyu soxna Rama. Mhm. ñu ngi lay fay Ilimane. sëñ Ahmad Diop ñu génn léegi. Mhm. mais tamit li nga wax si troisième mandat bi man franchement man loolu sama préoccupe parce que wax dëgg yàlla euh, su ñu ñuy naan suñu intellectuels yi wala suñu juristes yi. waruñu mën a interpréter lenn lu dul mbir mi il y aura plus troisième candidature point mm. on n'a pas besoin de commenter ou autre chose parce que il faut ñu xam li li indi référendum bi li indi ay waxu troisième mandat wala deuxième mandat mooy jurisprudence Abdoulaye Wade bi mm. kon keneen ku ñëw fii nag ci jéem a nag di di ñu bëgg a tënk si ay mots français naan kii bi cinq la convoqué waxul sept mandat de sept ak yooyu yëpp gis nga franchement c'est pour rek respecté wuñu dëkk bi te foog naa ni foog naa nit ñi war nañ doyal ci Sénégal saa yu élection jubsee nit ñi de stressé wu mhm. stressé wu mooy que ndax diw day nekk candidat wala du nekk candidat mm. yu demee mm. noonu ñu mm. nekk ci ay xeex yoo xam ne yu dul jeex dilemme yu dul jeex waaw franchement loolu état boobu dañ ko waroon dépassé man wax dëgg yàlla foo naa ni si Macky Sall moom côté boobu moom dañ koy jeexal léegi nag ñu nekk nag si beneen si beneen mbir parce que tant que génn ñu situation ay troisième candidature ak deuxième day tax képp ku fi ñëw doo liggéey. Mhm. yaa ngi jéem a xool nooy fexe di toogee. te tant que yaa ngi xool nooy toogee si ay manœuvre politique ngay nekk. Mhm. mais su la wóoree ni que loo fi mënti def moom sa ñaari. su soo amee chance nga am ñaari mandat moom da ngay dem. Mhm. maximum bi mooy ñaar parce que su benn bi lañ lay xool ndax dañ la war renouveler wala de su soo su fekkee defoo lu baax lu tax ñu renouveler gars yi gars yi jëlee la fi. wallaay wallaay waxuma nag bay xalaat nag naan da ngay def sa deuxième boo xam ne mooy sa last ba pare di jéem a di daan présenter wut beneen non loolu. Mhm. quand même c'est-à-dire loolu moom ça doit être l'inévité sur toutes les journalistes toutes les chroniqueurs toutes les personnes influenceurs yi nga xam ñooy ñu ànd ci moo gën. Hmm. loolu mooy dëgg. te ñi nga xam ne tamit ñoo xam ne daa am ñoo xam ne jox leen seen i kàddu mooy comme mooy soi-disant les chefs religieux. Hmm. ñoom tamit nañu xool seen diggante ak seen borom vraiment surtout ñoom. waaw parce que nag euh, fitna asaddu min al-qatl. vraiment yàlla nee na fitna moo gën a métti sax dee. parce que hmm. nit ñi situation bi ñuy toog doo mën a dem marché. doo mën a dem liggéey doo mën a faj say soxla loolu moo gën a métti sax nga dee nga wute ko. vraiment soo deewee xam nga ni dee nga vraiment vraiment vraiment. wante yow ngay dund am ñoo xam ne ay privilégié lañu parce que gis nga il faut pas oublier que xam nga ba fi coronavirus bi amee Sénégal ñu naan ay confinement xam nga patron yeeg ministre yi ñoom suñu confinement Sénégal mille ans. Hmm. du leen wàññi dara parce que ils ont les moyens pour dem di def ay courses en ligne yu demee noonu. wallaay wallaay wallaay mais le góorgóorlu bi nga xam ne moom wallaay. xam ne moom dina ko mën jàppale. dëgg la de. tu vois donc il faut pas que ñuy nekk fii te nag amu si kenn kenn ni suuna de looro ni italien di wax. Mhm. que judd nga fekk sa baay am xaalis. vraiment vraiment vraiment. foog naa ni ñoom politiciens yëpp. Ah. à part Abdoul bi nga xam ne peut-être nekk papaam nekkoon na dara mais ñoom ñëpp ñu des ñëpp. Ah. ay doomu góorgóorlu man la ñu woon. vraiment vraiment. tu vois ñoom ñoo censé pour mën a rétablir la vérité. Mm. équité justice sociale. vraiment wante ñoom ñooy ñëw di su ko allo. waaye yow rek la ñëpp di déglu. ñu ngi lay déglu. allo yow la ñëpp di déglu sëñ bi. <laughs> allo. yow la ñëpp di déglu. Oh. allo dafa am problème de connexion de xanaa. allo Jean Djiba. ooy Dior. ñaar ñëpp yéen a ngi ci ligne bi dama xamul ndax moom moom mu ngi wax ñu ngi koy dégg waaw ah, moom moom ñu ngi koy dégg mais moom xamul ni ñu ngi koy dégg xamuñu ñu ngi koy dégg waaye mais ñëpp a ngi koy dégg ah xam naa moom moo amul retour quoi waaw waaw waaw moo xaar ma xaar ma xaar ma xaar ko ci ligne bi ah <laughs> Sidi Bia Jean allo Jean Djiba ah kooku itam déggatul de génne naa leen parce que ñoom ñaar ñëpp dañuy woote ci ci même ligne bi. waaw bu ko defee day gudd bu yow ñëpp yow la ñuy déglu yow waxal rek ñëpp yow la ñuy déglu boo paree rek. parce que Jean Djiba laa dugal ci ligne bi ñaar ñëpp laa boole quoi. ah ok d'accord maa ngi koy de passage. voilà. donc man loolu la man Ndiawar man wax dëgg yàlla a troisième mandat. Hmm. troisième mandat. boo boo gagné nga gagné. waaw waaw waaw. waaw troisième candidature bi laay wax. waaw vraiment loolu franchement nañ ko teg si suuf organiser ku ku ku gagné nga gouverner. way loolu moom Sénégal suñu fexee ba euh, romb état boobu moom. waaw mën nañ prétendre naan dëkk bi mën na développer mais tant romb ñu état boobu. waaw bu ñu xalaat développement parce que si politique politicienne la ñuy nekk. loolu ku ko fii jéem sax dañu war a tàllal sa nunara ba mu ne ñayi ba ñëpp gis ko bu ko defee ëllëgee kenn du ko def xanaa xamoo loolu moo tax Sénégal yi di jaay gëree di def parce que dumaaguñu fi kenn amagu fi coup d'état gaañaguñu fi kenn say njaboot loolu moo tax politiciens yu con yi saa yu ñu faloo rek defe ne loolu war nañ ko mën a def ci réew mi quoi parce que on est non en tout cas moom franchement on est trop tolérant avec les politiciens. oui non parce fen di sàcc di wor di def lu leen neex ñu leen ciy bàyyi ñuy kompaloog sëriñ si fii nag tàll nuñu fi ay nonara bëccëgu ndara kàmm. giñ naa ci yàlla ni ku ci ñëw da koy essayé. mais li ma si xam mooy que euh, armée bi. bullshit ak journaliste yi. chroniqueurs yi juristes yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité wax dëgg parce que wax dëgg lu la taxee am sa wërsëg ah mm. parce que nit ñi war nañu xam ni yaa ngi dund te gisoo Macky Sall gisoo keneen tu vois ak moom du tax nga dund ñàkk ànd moom du tax nga dund. vraiment dund yàlla moo koy yor. vraiment comprendre te wërsëg gi tamit yàlla moo koy yor am na ñoo xam ne nekk nañ Sénégal. fol Sénégal sax lañ nekk xamuñ sax kenn ci politiciens te ñu ngi dund seen du leen neex. vraiment vraiment vraiment quoi mais nag man man man vraiment lii nga xam ne lañ teg sénégalais yi nga xam ne su élection élection jotee te wóor na ma ni que euh, xëy na seen journaliste boobu doon jéem a naan ay élection locale du am xam naa élection législative la bëgg a wax parce que c'est très bien que Sénégal mënuñ organiser élection janvier di ko électi di organiser ci juillet xaw ma juillet loolu moom suñu xalaatee ni législative am juillet moom dañuy kooku moom. ah tamit il faut que ñu intégrer ko si mbir parce que comme que gars yi rëcc nañu fexe ba mën a organiser ay élection janvier moom gëmuma ni que dinañ élection dinañ organiser ay élection législative mais problème mooy que pour deux mille vingt quatre dafa war a leer si bopp nit ñëpp nekk man Macky Sall dootul bokk affaire bi leer nit ñi xam fu ñu jëm hmm. moo gën doomu jàmm yi ñu yoole ñu leen di rey fii di leen fitnaal am na ñoo xam ne si ay bavure policière lañ la seen àdduna yàqu ñu am ay gaañ-gaañ yoo xam ne mën ils sont inactifs te amuñu benn ginnaaw gi état bi lu mu leen di indemniser wala yu demee na xam nga le problème ñun suñ dëkk yi loolu moo si met xam nga dëkk yi ñu nekk yi dëkk yi développé yi su la yéen yi dalee état bi da da lay indemniser vraiment est am na si ñoo ñoo xam ne sax il parce que gis nga gis nga doon anecdote est-ce que xam nga ni France bi attentat bi xewoon il paraît am na benn gaañ boo xam ne fu atam taxaw rek mu ne bokk na si gars yi di ko indemniser gars yi di ko jox xaalis après finalement dañ ko mujj jàpp. dañ ko mujj jàpp ah. dañ dañ njaayeen mu ne moom fekk mu ne affaire bi mi ngi fa woon. njaayeen la de jot mu ci wax. léegi léegi la ñoo garaaw. ah wante ñun nag moom say mbokk rek ñoo yem seen xam nga ni kii ci ci eh. policiers rey mbuur xaw ma. Eh. mbokkam yi ci tey seen loo xam nga tamit loolu tamit gis nga tamit damay dénoncer seen policiers yi ils sont pas sérieux. sérieux wuñu il y a des yoo xam ne su xewee. àll bonni politicien ñëpp dañ ci war a wax. Eh. parce que le problème mooy li xew mbuur ci ci ramasse ñu dóor la ba nga dee si. amul benn politicien bu si wax lu dul ñi nga xam ne amul kenn déggu leen. loolu c'est pas normal ah, les gens tamit doivent parler parce que tamit Sénégal ñoom injustice ñu ngi koy wax rek suñu téye un politicien mais tant que téyewuñu un politicien ñoom pour ñoom justice mi ngi dox wallaay wallaay wallaay wallaay donc nag loolu ça maa ngi jéggalu nag jox la kàddu gi Diawar vraiment waxtaan bi neex na trop ah? la laaj bi na yokk quoi waxtaan bi neex na trop maa ngi déglu depuis mën nga cee mën yokk dara ah mais mais yow militaire yi ñuy jël di leen def ay ambassadeur militaire naka la mën a nekkee ambassadeur Jean yow koo xam na ay ordre si si wii wii rek. général kooku. eh waaye yo nañ ko bàyyi waay. kooku ay attaché militaire lañ naan doon def ay attaché militaire. Ah. militaire yi attaché militaire. te attaché militaire du ambassade yëpp lañ ko doon def dañ doon xool ambassade yoo xam ne. Mhm. Sénégal daf fay yóbbu ay militaire ñu ko dem stage comme ay états ni ay Maroc lañ ko daan def ay France. waaw ay Tunisie ak yooyu. mais léegi dañoo dem ba xam nga ñoom après dañ doon nommé. à la folie taw Ablaye Wade xëy na benn année wala presque quinze généraux xamatuñu fu ñu di def. oui ñu jël leen nag ubbi ay poste am attaché militaire bon sécurité la tamit si les sous la sous région là ay Mauritanie. ay Guinée Bissau. waaw Guinée Mali ñu def ay attaché militaire pour non seulement bon pour pour pour pour renseignement. waaw comme problème commencé na woon am Mali. ak mm-hmm. problème am ci sous région ay colonel ak ay généraux comme ay attaché militaire. waaw loolu dëgg la loolu moom comprendre naa. mais mais ambassadeur ambassadeur militaire moom. Mm-hmm. non non non non kooku Abdoulaye Abdou Diouf moo commencé ci général Mansour Seck xam nga. ah Mansour Seck mu ñu yóbbu woon États-Unis États-Unis lañu ko yóbbu woon moom. waaw waaw waaw moom la ñu yóbbu woon États-Unis. Ah. moom la ñu yóbbu woon États-Unis xam nga. Eh, ak Dasouza ak Dasouza da nga fàtte Dasouza Allemagne lañ ko yóbbu woon. Dasouza waaw ñoom la ñu activé woon dégg naa la nga koy wax. ci commencement koy wax sànq waaw. Euh, coup d'état bi en 88 la. Ah, ah, ah, ñoom général Omar. damay suivre de intendant macha allah. waaw euh, non non. maa ngi lay suivre te xam naa ni bon da da yaa ngi fàttaliku yooyu. wallaay amoon na intendant benn intendant bu ci bokkoon intendant Ndiaye. Omar Ndiaye. moom la Ablaye Wade euh, récupéré woon après yóbbu ko Lonase. Lonase la ko le colonel Bampassi bi doon commandé Batpara. ñoom la ñu ñoom la ñu ak ñoom la ñu activé woon affaire boobu. coup d'état bi wallaay wallaay wallaay wallaay. waaw pour pour bëgg leen écarter rek créer ay problème quoi. Mhm. mais ñooñu bu ñu bëggoon coup d'état ñooñu bu ñu bëggoon coup d'état. Hmm? ñooñu bu ñu bëggoon coup d'état ah mais ñooñu duñ ah. loolu loolu gars yi duñ ko wax sax. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay. du jëm kaw du jëm kaw xam nga Sénégal moom bon gars yi dañuy dem ba benn temps. Hmm. dafa am ñoo xam ne dañu leen di wóolu am na ñoo xam ne du leen wóolu dañ leen di rek lay xel yenn militaires yi. dëgg la parce que boo boo xam ne am nga am na militaire yoo xam ne. Mhm. du ñu dégal ñu civil trop du leen demander service soxla ñu dara dañuy yem ci seen cadre militaire. way jàpp seen ñaam gars yi bu ñu waaw dañ dañ autorité autorité civile yi dañ leen di ragal. ah duñ leen ñeme amul la ñoom dañuy soxla ay généraux yoo xam ne dañuy dañ leen di woo téléphone. ñiy taatalaw hmm. nga ay service ñiy taatalaw nga xam nga rek ñu naan c'est le civil qui commande le pays en loolu nag ñu ngi leen ci wax bu ñu amulee leen ci. dañuy ragal dañuy écarté. wallaay wallaay parce que dañu xam ne sa bopp. xam nga loolu mooy seen problème. seen problème principal loolu la. dégg naa nga wax ci troisième mandat yow nan nan ngay toogee. ñun ah. ñëpp xam ne ñaari mandat ñaari mandat ñoo defee. waaw su ma waxee. ngay def classement su ma waxee bii mooy sama deuxième su ma defee bii mooy sama dernier mandat kon kon kenn dootul liggéey. waaw. kon yow bu ñu la mais kon ñun amuñu administration sax loolu mooy loolu mooy ñàkk wuulu administration. non non. ñëwaat imaginer buñ ko newoon léegi may nañ la nga kon bi bu koy def kon gars ga aha gis nga loolu lay tekki. kon kon xam nga gars bi lan mooy problème am. Ah. il s'est pas il s'est pas préparé pour ku koy remplacer. exactement non non non préparé na mais daf leen ko yéenewul. xam nga boo soxoree noonu ngay mel da lekk ba suur. gars benn waay di deew a xiif nga ne ko nga ne ko bu bu bu bu suuree da day day day yëg li may yëg. boo yéenewulee boo yéenewulee nit pour mu pour mu remplacer la. mais mooy maanaam préparé wu ku lay remplacer. wallaay wallaay wallaay wallaay. su lay wutu ñëw def la comme liñ fi def nit ñi. Hmm? tees teestu la ci say mbokk ñox leen ci kasa bi. ah loolu jaral na ko woote dëkk bi Macky Sall kooku ma wax la ko. Ah, ah, ah. man damay wax damay waxtaan ak ay kilifa ñu ne ma gis nga le pays là. il il est prêt billaahi dëgg la këpp na essence fépp te moo ko këpp. moo koy wax laa ah, wax. waaw waaw wallaay. ay système militaire hmm. dëgg la. gars yi dañuy nekk toog xam nga dañuy wax. gars yi dañuy jël ay mercenaires fay leen comme ay yéen Cheikh Yérim Seck ñuy ci plateau télévision yi. dañ leen di hmm. fay ñuy wax lu neex. tey ñu wax lii suba ñu wax lële. xam nga boo toogee ci télévision te Sénégal yi dafa dañ ko nga toog ci télévision rek xaaj ci ba mu kii wi wi ci waat toog ne ah tey laa leen di wax lu ma musul wax fan. wala tey laa di wax lu fan musul wax. lu ma mos a dégg waaw waaw waaw. waaw nga inventé benn affaire rek ne ko tey sénégalais rek gars yi ne non Yérim Seck li mu wax ni dëgg la gars yi la ko déggee. Hmm? tey duul tey sos épargne météo bi. borom dafa mën a inventé dama xam su ko sénégalais xam sénégalais dafa dafa dénkum ko <laughs> xam nga ni sénégalais dafa dénkum ko. xam nga Sénégal boo ko waxee benn affaire bu koy pité rek mu yërëm wax. waaw loolu la gars yi di wàcc. te te te arti faw arti faw taal dëkk bi balaa muy dem loolu la bëgg. bu bu ko bu ko naree ci kawam lay tàkk. non dafa ne. te képp ko bëgg a protéger di nga tàkk ak moom. moom te xam nga jënd na armement jënd na ji jënd na. loolu du dara. ñu muy nommé ñooñu ñu muy nommé ñooñu yëpp ils seront pas ñu ñooñu ñu nekk ci kaw. ils seront jamais sur le terrain pour jàkkaarloog. ku weddi laaj Alpha ki mu gënoon a wóoloo ko def lu mu ko def. waaw ah. kay. waaw nañu gis nga ma gis nga gis nga booy soldats yi ak booy militaires yi nga gis. ndaw yi ak booy gendarme yi nga gis. ak li nekk seen li nekk ci li nekk ci jeunesse sénégalaise bi moo ne ci ñoom. wallaay wallaay wallaay wallaay. suñu sol di liggéey rek moo leen différence ak gars yi. Hmm. li nekk li nekk ci bopp si hmm. yi. di manifester ay étudiants yi. moo nekk seen bopp. wallaay wallaay wallaay wallaay. suñu toog mais seen génération moo xew. Hmm. génération kekk ak ñoom Macky Sall di wax moom moo na ci ñoom. wallaay wallaay wallaay moo na ci ñoom. wallaay foofu ñu manifester xaaral xaaral ba ñu jàkkaarloog population bi. bu Macky Sall ne day def mandat nga xool. billahi Macky Sall dina dina. dinañ ko def loo xam ne. man de loolu laa xeeñ ci fu mu toll nii moo tax may wax. maa ngi wax nag. mais Ndiawar xam nga xale dañu naan xamul lii xamul lii mais gis nga en quatre vingt neuf. Hmm? ci événement ci événement naar yi laa gis loo xam ne. ak man yaakaar ni Sénégal yi wallaay wallaay defoon naa ne Sénégal du ko def. wallaay camion pompier lañ jël. def ci ay nit ñu rendi ba mu fees. Oh, camion pompier subhanallah allahu akbar. la ilaha illallah. loolu loolu man dafa yéem laa la wax. wallaay wallaay wallaay wallaay. dama nekk ni ci oto bi lang jàpp ci oto bi rek wàccaat wallaay gis naa ko dama wàccu laa wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay gis naa ko ma ni sénégalais pour di deful nii ñi gëmloo nit ñi ñi gëmloo nit ñi gars yi dañ leen tëjoon hmm? dañoo xiifoon moo tax gars yi gis aca ma ne gis émet eh, émet eh, fu mu am émet eh, fu mu am États-Unis bu ñu reyee play kay attaque yu yaay magate hmm? ah attaque yu ñu ay touriste attaque yu ñu ay magate di jël ci ndaw di yóbbu seen kër waaw wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay manifestation dañuy dugg Champs-Élysées gars yi ay yére bëgg naa Macky Sall bëgg naa Macky Sall tiit bëgg naa mu tiit parce que dafa ne ne ñëpp ay mokkat lañu ndax li mu am yëpp ay menacé tiital moo ko ci il faut que il faut mu xam ne nag réew mi dañ koo bokk dañ ko bokk voilà na dem bàyyi ñeneen ñëw jiite réew mi su dee andi doomam sax mu doon <laughs> mu doon mu mu dem ci élection yi buñ ko tojee sax jox ko ñu ne ñu xam ne gagné na quoi mais moom moom du fi moom moom du fi toogaat moom bu soobee yàlla. moom xam na loolu. waaw ah. mais dafa bëgg a sabati dëkk bi. waaw ah. dafa bëgg a sabati dëkk bi loolu la bëgg dafa a sabati dëkk bi. jërëjëf loolu la bëgg. jërëjëf Sarr waaw trop. wallaay merci way Amadou Diop wallaay wallaay wallaay wallaay jërëjëf bu commencé rek dama jàpp rajo bi di déglu di déglu Zanjiba Zanjiba nuyu naa la Zanjiba man la soxna Rama nuyu naa la soxna soxna Rama ngi lay soxna Rama ngi lay nuyu xam naa dégloo ko mu ngi lay nuyu waaw ne ko nuyu naa bu baax a baax ba tamit ah. <laughs> jërëjëf merci beaucoup ma jox la une minute dangay nga yéex a wax yow tamit ku fi yéex a dugg rek nekk ci ligne bi pendant de kii waxuloo boo mal boo jëlee micro rek ma wàññi minute yi une minute du ma ko weesu. dëgg la non man kay damay damay. Ah, leeral rek man xama man man damay doxal noo xamante ne loi rajo bi la du man. déet dëgg dëgg rek. damay nuyoo dama nangu naa man man man nangu naa man moom werante ah. léegi Jean moom dama kontaan moom te Jean moom wax naa eh, jabar waxal Jean après nga yónnee ma numéro <laughs> di eh, eh, wax ne eh, Ndiawar une minute bi nga ma wax dinaa ko rek ata mm-hmm. man damaa yaakaar ni boobu ba léegi naa ko ne gis nga mm-hmm. Macky xamoon na li mm-hmm. xew mois de mars doful dina jàpp mouvement boobu dafa dafay dafay nelaw nii rek da dafa ne mbëpp rek taxaw yi xaar mais troisième mandat man daf maa wóor ne Macky da koy tudd rek mooy mouvement boobu ak ñi tëddoon di nelaw mm. ñëppay gën mm. amul sax werante mm. bu boobaa man wóor na ma la sénégalais amul benn sénégalais buy déglu benn sëriñ du déglu kenn kooku Macky moo ko war a def boppam troisième mandat nekk na loo xam ne sénégalais yi wala amul kenn ku koy toléré la gis nga man gàcce gi may am des fois di dégg ay nit di jéem a prouver di jéem a wane juridiquement di jéem wax ci ponkal ma kom jëm mu ne bàyyam moo taxaw ci Sénégal yëpp tiim ko. Hmm. mu ne leen bi affaire bi bañ bañoon mu gën a mel nii moo tax ma ne nul ne peut faire deux mandats consécutifs consécutifs waaye nit wax loolu mu leer naññ hmm. mu ne bañ nga yow yow yow man sa sama ngor may sax ma taxaw di ko défendre te moom défendre boppam vraiment vraiment ah, bët. wallaay. yow yow Abdou Khadre une minute mat na. <laughs> bi jot na amul temps temps kii soxna Rama ñu bàyyi la nga tàqali ko ba suba incha allah. Ah, suba suba amul de njabar. wala déet altine altine altine waa kay Ndiawar waa comme dugg nañ ci na na na gaa yi taxamtalu tuuti ma tegal benn interview ancien vice président bu Gàmbi moom la ñu invité woon tey ci suba ñu rediffuser lañ ko léegi rek. ate bisimilah dañ ko déglu ni dugg nañ ceeg bisimilah rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin kon nous vous disons bon week-end et puis nous vous disons à lundi même heure même port jërë ngeen jëf gaa yi leen fan waay.